waaw table ronde bi mm-hmm. euh, bii mooy ñaareelu yoon bi euh, ñu koy def daaw defoon nañ ko ci situation euh, Covid bi ñu nekkoon ñuy wax naka la waylaago yi mën a dundee ci biir Covid bi parce que xam nañ ne waylaago en général Sénégal seen loxo jotul ginnaaw dañu nekk ci famille yu yu yu vulnérable te lu ci bari ñoom ñooy indi li famille bi di dundee. Euh, moo taxoon daaw président de la république mu doon euh, xalaat ci euh, relance économique bu mu wax mu jiital ci personne yu gëna a vulnérable ñi nga xamné vraiment day metti ci ñom seen loxo jotul ginnaw muy wayla ba yi muy ñoo xamné ne voilà ñom lañu wax situation de vulnérabilité motax formation yi gëna a tax ay structure yu mel ay 3FPT ONFP yooyu yëpp jóg di former nit ñi

de muy ditax bi muy euh, muy uur bi muy solom bi yooyu yëpp dañ koy def ay euh, ay confiture ay ak yeneen produit ba ba ci euh, ndam ras bi dañu génne huile bi diw beek yooyu yëpp yooyu yëpp nit ñi ñu ngi koy jàng way laago yi ñu ngi koy jàng ñu ngi koy mën ñu ngi si am diplôme moo tax ñuy lëkkaloo ak ñu ñu wax grande surface yi nga xam ne ñoo yore magasin yu mag a mag yi nga xam ne dañ koy jënd si ñoom dem def ko seen rayon loolu rek dina tax ba koom wàññeeku si euh, way laago yi euh, non seulement am nañu lu ñu jàng am na métier boo xam ne xam nañ ko xam-xam du mës a nul euh, te tamit loolu dina leen indi njëriñ ñaareel bi mooy tey taxawaalu bi dina gën a wàññeeku parce que ñu bari ñu doon yelwaan ñu ngi def formation ñu ngi dem defi ay ay activités yoo xam ne mu ngi leen di indil ay entreprise tey da ngay gis ay way yoo xam ne ñoom ñooy Euh, euh, fay ñeneen ñoo xam ne amuñu laago pour ñu liggéey ak ñoom ci seen activité yoo xam ne seen xam-xam moo moo tax ba ñu développé ko. Euh, waaw parce que loolu dafa nekk mbëbëtu jiitu réew mi président Macky Sall pour moom sénégalais bu nekk sénégalais la amul sénégalais bu gën moroomam donc bu ñuy wax yu mel noonu politique yu mel noonu da ciy jiital ñoo xam ne tey ñoom ñoo gën a néewle doole ci ci askan bi motax euh ñooñu buñ leen doolé lé touti rek lu wax équité day am parce que mom mo ngi ci équité territoriale donc équité territoriale bi ñepp la wara mëna mën euh warul des kenn bayyi kenn ginnaaw euh, moo tax tey euh, formatrice bi bu mu doon wax ak euh, abissé bu 3FPT joxé nañu ay xayma joxé nañu ay chiffres yo xamné woné né wax dëgg yalla ñu ngi ci man mi sama bop amna ay waylaago yu may formé euh, au nord c'est Saint-Louis ñi defar sabu sabu yo xamné sabu bio la euh, euh sabu yi ay produits naturels ay mbërbëf ay lem ak yoy meew ak yooyu lañ koy défé té produit yo xamné du jafé ñom ñu am ko pour défa sabu anam yu wóor anam yu bax lañ koy défé donc euh, yooyu dafa euh, si euh, sukkali comme Sénégal le Covid bi nek Covid bi venir aussi à le président Macky Sall daf ko depuis lors motax Nations Unies bi ëmb bi comme thème si journée lañ di si relance économique de